démb ca assemblée nationale ay député yoo xam ne nag ci opposition bi lañu bokk ñoom nag dañoo addu ki nga xam ne moom mooy premier ministre Amadou Ba mi doon amal déclaration de politique générale ngir daal mu indil leen ay leeral ci troisième mandat bi ñuy laam-laamee ndax njiitu réew mi Macky dina ko yóotoom déet moom nag lam leen tontu moom mooy loolu daal euh, mbirum responsabilité personnelle la te ki nga xam ne daal mooy euh, président Macky Sall la concerné wax na leen itam daal fii ci suñu réew daal. Euh, terewuñ benn sénégalais kon daal euh, mu fësal li nga xam ne moom mooy ab candidature am yéeneen ngir jiite réew mi. te sax nee na constitution bu suñu réew wax na lu leer ci mandat bi ndax nee na mandat bi juróomi at la te kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo. député yi yeeyu askan wi ñoom nag dañoo xamle ne dinañ amal ab motion de censure jëmale ci Amadou Ba ak gouvernement li ko waral nag ñoom daal na muy doxalee ñu ne eh, doyu leen te ànduñu ca ki ko xamle moom mooy Birame Souleye Diop mi nga xam ne sax moom mooy eh, président bu groupe parlementaire bu yeewi askan wi motion de censure nag ab jumtuwaay la boo xam ne ay député mën nañ ka jëfandikoo bu dee ne daal ànduñoo ak li nga xam ne moom mooy euh, gouvernement bi ngir sax pousse ko mu démissionné. député Massata Samb ak Mamadou Niang démb nag euh, woon nañ fële ci assemblée nationale ci déclaration de politique générale bi nga xam ne kon premier ministre Amadou Ba mu ngi ko doon amal loolu nag mooy lu njëkk sax ñuy feeñ euh, ci li ñuy gis. gannaaw bi nga xamee ne nag euh, amoon nañ boobule coow ak euh, kii di député Amy Ndiaye bu bennoo bokk yaakaar ki nga xam ne nag moom mooy seen avocat euh, doon leen waxal mu ne nag député yi ñoom daw ñu woon wante dañoo amoon lii di ab délai de repos loolu moo taxoon kon dañu doon euh, noppalu wante mu ne ba délai ba jeexee kon démb ñëw nañ foofu la ci assemblée nationale ñu fàttali ne nag euh, ñaari député yooyu di Massata Samb ak Mamadou ñaar bésub tey bi euh, dinañ dem wuy ji ab convocation bu division des investigations criminelles xibaaru bitim réew benn ponk lay doon bésub tey bi la sommet États-Unis Afrique di ubbi fële ca Washington ki koy jiite nag di président bu Amérique di Joe Biden ñu ne nag lu toll ci quarante neuf pays africain wala boog Union africaine dinañ fa am ñu leen fa représenté te sax euh, ñetti fan yoo xam ne kon dina euh, dinañu waxtaan mbirum euh, sécurité économie santé ak yi ni mel changement climatique ñu ne nag États-Unis dañoo bëgg a defaraat seenug Euh, relation ak euh, ñii di Afrique gën a kaa ñoŋal gannaaw bi nga xam ne sax euh, kii di Donald Trump jóge na fa. xibaaru sport lañ koy daanelee ba bu tey bii nag mooy premier match demi-finale bu coupe du monde Qatar 2022 war a am ci diggante Argentine ak wa russi ki nga xam ne nag moom moo gagné match boobu moo war a daje ci final ak ki nga xam ne mooy gagné diggante France ak Maroc match boobu war a am ëllëg. loolu leen tey ci xibaaram seen teewlu di jox daje ëllëg jaa ngeen jëf